non à la hausse de l'électricité di ab pétition bu 31 453 signatures bi nga xamante ne déposé nañ ko foofee ca lekk ñëpp nag booloo ngir bañ bi lay yokkute bu ëpp bi ñu nemmeeku ci facture courant yi ci weer yi mujj. dëgg la aussi ne euh, période bi ñu nekk nii dafa tàng waaye loolu mënul tax koo yow nga yeewu sa facture rek ñu ful ko ba mu mot ñetti téeméeri yoon dafa ëpp. dafa ëpp te loolu jusqu'à présent Senelec pour tegagul dara lu leer sunu loxo parce que munoo ne koo xam ne da doon fay 15000 ñu indil ko facture 250000 wala 300000. Senelec nag daal di jot yi les signature te nag xam ne ni que dina xoolaat mbir mi. donc li ñu retenir mooy ñoom bu ci nekk daa bi nga xam ne am nga ko muy loo xam ne da nga koy ñaxtu dañ laa conseillé nga dem ci agence. li nga xam ne si ka defar wax li nga xam ni moom la d'accord wala li nga xam ni kontaan ñu tamit ñu leeralal ko jox ko explication yi ci war yëpp li ñu tënk mooy fi ak weer ñu dajawaat dajale ñaxtu yi ñu jot ci agence yi bu ko defee ñu ñu donte ne sax Senelec daal dina rassuré waaye nag Oumy Ndour ak ay àndandoom xalaatu ñoo bàyyi mu sedd léegi nag prochaine étape bi mooy ñun sunu campagne day continuer ci réseaux sociaux yi ak ci média yi na gars yi signé pétition bi ndax ñun bi ñuy dugg 34 000 signatures la ñu woon le temps ñuy génn 1 heure 30 après dem na ba 35 000 mu leen di wan ne fi mu toll nii moom courant bi ñëpp la laal. ginnaaw bile étape ñoom nag fas yéene nañ toog ak médiateur de la république laata ñuy dem foofee ci assemblée nationale ak toog ak waa comité de régulation du secteur de l'électricité